auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ñoo ngi yamoon bi paase zalika natluhu alayka min al wa zikril hakim foofu la ñu yemoon waaw ñu ngi ci ali imran tey jii ñu ngi dal ci euh, aaya 57 ñu ngi ñu ngi nekk ci ali imran troisième sourate waaw ñoo ngi yemoon foofu lañu yemoon waaw zalika loolu ñu waxta loolu mu waxoon lépp zalika day résumé li mu waxoon yépp zalika loolu day natloohu nettal nettal nañu la ko nettal nañu ko natloohu net yàlla na natloohu nettal naa la ko mm, maag samay malayka yax nii nettal naa la ko nettal naa net natluhu nettal naa la ko aleka yow muhammad salaa salaam ak yéen jullit yi ak kuy déglu min ayati bokk samay miracle muy alquran di miracle bi gën a rëy ci miracle yi yàlla moo ko wax ndax laam làmmañam la wa zikri di fàttali alxakim bu xereñe bu ñu xereñe muhkamaat dafa yéeme waaw muhjizaat la waaw aaya nag ñu daal di dal continuer nag inna masala isa inna masala isa indallahi ka masali aadama xalaqa xalaqahu min turabin suma qaala lahu kun fa yakun suñ borom tabaraka wa taala nee na isa day mu leen jaaxal ndax inna masala isa boo joxe ci misaalu isa naan moom dafa am euh, ndey waaye amul baay yàlla nee xoolal aadama rek ndax aadama it aadamaa ngu noonu xoola aadama boo ko xoolee nga xam ni yàlla lu ko neex def xoolal inna masala inna masala isaa xoolal mbirum isaa indallaahi ci yàlla kamasali aadama mu ngi mel ne aadama aadama amul ndey amul baay xalaqahoo bind na ko min turaabin ci suuf suma xaala mu wax lëhoo suma toppa xaalam wax loxoo ñeel ban boobu mu defar ba pare kun nekkal fa yakunu rek mu daal di nekk moom lu mu soxla rek loolay am kon nag dangay gis ni boo xoolee fii sarha bi nga gis ni man nga ni eh, yàlla wax na la ko ci waxin bu leer naññ fii Isa ibnu Maryam judd na am na nday amul baay xawaa judd na am baay amul ndey ndax ne nañ la ñu ngi ko jële ci aadama kon nag yooyu yépp li la koy wan rek mooy dalay wan ni di nga ko gën a gis mu lay gën a leeral ni alxuraan di progresser moom rek moo ko man billaahi lu la jaaxal rek siiwaral day tontu xel moom mooy yàlla yàlla mooy yàlla alxaqu dëgg min rabbika mu ngi jóge ko sa boroom falaa takkun bul bokk minal mumtarin ci ñiy déngi déngi maanaam les douteurs les sceptiques yàlla na ne hey alxaqu lii ma la nett li min rabbika mu ñoom ñépp seen boroom suñu boroom tabarak wa taala lañu jóge falaa takkun bul bokk minal mumtarin parmi les douteurs chasse la doute man faman faman haajaka ku weeranteeg yow nag ci lii ma la wax yow yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam faman haajaka ku ku taxaw di dàggasanteeg yow fii ci lii min baax di gannaaw ba nga xam ne min baax di maa jaa aka gannaaw bu ma la dikkalee minal ilmi ci xam-xam boo xam ne ñoom kenn xamu ko ci woon nga xam ma xamal la nga xamal leen ko ñu déglu ba xam ba pare bëgg a dàggasanteeg yow faqul nee leen léegi nag taalaw ñëw leen naddawoo woo leen ab naa anaa ma woo samay doom waab naakum ngeen woo seeni doom wa nisaanaa ma woo samay doom yu jigéen ak samay soxna wa nisaakum yéen ngeen woo seeni doom jigéen ak seeni soxna waan fusanaa ma taxaw ak sama jëmm waan fusukum ngeen taxaw ak seen jëmm summa topp gannaaw loolu yépp bu ñu dajaloo pare nab taxil ñu waat ñu waat waat gu ñuy waat mooy lañ lu ñuy wax dañ naan fanaj al yàll na yàlla laxnatallaahi yàlla na yàlla rëbb benn groupe bi fen si ñun ñi man ak yéen yahud yi alal kasibin fenkat yi ne leen yàlla rëbbal léegi si taxawaay bi waaye déggal loolu waay yàlla nee na ko yahud yi la déglu nañu ba xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent la am na seen biir ñu ko nangul am na ñu ko nanguwul waaye nag dañ koy jéem a def ay pièces di di ko poser ay questions yu ñu xam pour bu amee juyantloo ñu di ko piéger waaye nag si bii bii affaire dafa xawoon doy waar lool yàlla ni ko hey xam nga lan la comme nii la demee léegi woo leen ne leen ñëw leen man ma ñëw ma indi sama njaboot yi gu gu ma indi sama njaboot yépp taxaw maag sama maag sama waa kër yépp ñu taxaw ak samay saaba ak jigéen góor ñee ngeen indi seen ñi ngeen yaakaar seen samaak yépp ak jigéen góor ngeen taxaw buñ tax buñ dajloo par nag ñu woo yàlla ni ko yàlla groupe ñaari groupe yaa ngi nii ki ci fen alak ko léegi <laughs> yàlla ne ko duñu ko def mukk ndax loolu xam naa leen xam naa seen biir xam naa pièce ñu naroon duñu ko def bu ay daayu mi diin waaw ah, suñu boroom tabaraka wa taala dal di nag ni inna haza naka lii la huwa moom alxasasu moo la récit histoire mal nettale alxaq muy dëgg muy dëgg dëgg pire mooy lii mooy lii dëgg mooy lii lii ma la mooy dëgg wa ma min ilahin déet beneen yàlla ilallaahu bu dul yàlla rek yàlla rekk mooy yàlla wa inna naka yàlla lahuwa al azizu al hakim lahuwa moom al mooy aji tëdd ci nguuram al hakim kay tëral atte fa mu yelloo soo gisee lii sarxaa bi da nga dégg werante yu bari yahud yi dem nañu bañ ne useyru ibnullahi ñu ne useyru jàng nañ ko ca bàqara ndax yamu miracle yamu daan def rek buy wax mu def naan allah def naan ahla mu annaka ala kulli seen xadir xam naa ne yow lu ne man nga ko lu mu ca bëgg a def def ko ci mujj gi ñu ne mooy doomu yàlla bi is yéen ci yàlla isaa ñëwet di def ni ngeen ko jàng ci gannaaw maanaam di raayu gumba yi ñu ñu gis den ñuy gis ak yooyu mu def te mu doon def dekk ku dekk yooyu raayi gaana mu wér ñu ne déedéet ñu ñu nasaraan yi ne kii nag mooy doomu yàlla moo tax nga dëgg yàlla naan waxaaltil yahudu useynu ibnillah waxaaltil nasara useynu ibnullah yàlla nañu torox seen baat yooyu ñuy wax mu mel ni fii weerante bu sanha bi boo ko xool da ngay waaru si yoon yonte yàlla muhammad salaam kenn du seydina muhammad salaam yàlla da ko doon bàyyi muy tontu boppam ay tontu yi nga xam ne c'est c'est non c'est incroyable ni mu ñëwee mu koy tontu wax nag yàlla dëggal ko ko nag door a wàcce aaya alquran moo tax kuy kuy lépp lu waay di def na ca góorgóorlu yàlla du na bëri di ñëw la noonu de dina la seetaan seetaan goo xam ne boo cuune rek daw maa la wax léegi. waaw loolu la alxuraan di jariñ ñu jàng ci loolu bu baax nga xam ni kon alxuraan ñëw na ba ba ilaa yawmi diini doomu aadama duutu mën a concevoir ci boppam ñu naan kii doomu yàlla laak nangam ak yàlla yàlla daal lu ko neex mu def si nit ak nu mu ko neexee mu jeex tàkk waaye nag li wér ba wér mulkan wa xalxan wa abidan moo fi nekk mul kan moom moom wa xalxan moo bind wa abidan ñépp ay jaamam lañ la ko dalal sa Muhammad sallallahu alayhi wasallam ba bésu tey ak ñëwagul ay jaam lañ ci biir jaam nag def na ci ibaadu mukaramun jaam yi nga xam daf leen teral ca ñamu teral génn na say kéemaan ni kéemaan jumal ku ne loolu mbiram la moo mel noonu waaw fayn tawalaw gannaaw ba nga waxanteeg ñoom li yëpp ba pare mu leer nañ seen bopp fayn tawalaw buñ la wonee gannaaw dem fa inna allaha naka yàlla alimun xam na moom bil mufsidin ci yàqakat yeeg saay-saay yeeg saboteur yi xam na leen bu leen faala demal demal fa inna allaha alimun xam na bil mufsidin ci yàqkat yeeg tooñkat yi attention de loolu nag <laughs> loolu fa inna al fa inna allaha nag yàlla alimun bil mufsidin mooy demal rek dox sa dox moom dina réglé ak moom la dina réglé ak ñoom la ñuy réglé la mu war réglé ak ñoom xul waxal yow yaa muhammad salaa sallam yaa ahlal kitaab yéen ñi jàng téere yi te àll wi ñëw leen ilaa kalimatin ci benn baat sawaa in bay na naa ñu yemoo ci baat bi ñu ñépp wa baynakum ak yéen ala nax bu da bu ñu jaamu ilallah lu dul yàlla ñun ñépp nañu bokk jaamu yàlla rekk wala nushrik bu ñu bokkaale bihi ci yàlla seyaan dara dara dara wala yataxisa bu ñu jàpp bax du naa lenn ci ñun ñi bax dan benn kuréel wala benn boromi xam-xam arbaaban def leen ay bunt min dunillahi bàyyi fi yàlla muy dellu rek ca wax jële rek waaw boo leen waxee lii ba pare nag fa in tawallaw bu fekkente ne topp ñu la wan nañ la gannaaw fa qulu nee leen ushidu seede naa man bi am na naka man dey muslimun man dey jullit laa maag samay gaa yi ma àndal seede leen yéen ni bi an naa naka ñun daal muslimoon ñun ay jullit lañu ay musulman lañu yéen sedda leen lool seen làmmañ yaa ahlal kitaab yi waaye yéen borom téere yéen ñi jàng tawreet ak linjiil ak saboor yéen ñi ko jàng yéen yaa ahlal kitaab yéen ñi jàng téere yi li maatu haajuuna lu tax ngeen di dagg man fii ibrahima ci mbirum ibrahima wa ma unsilati tawreetu yéen li ngeen di weranteeg man sax ci ibrahim loolu gannaaw ibrahim la wàcc wa ma unsilati tawreetu wal injilu illa min bahdihi wàccewuñu tawraa wal injil ak saboor yépp illa min bahdihi lu dul gannaaw ibrahima la wàcce man ma gën leen xam ibrahima fuuf xam ba àdduna commencé gul ma jóge ca leeru yàlla xam lépp yàlla bu yoo xam nga daf naan wazkur fàttalakul ku ñuy fàttalake danga xam ma leen di jàngal ngeen war maa déglu ngeen bëgg di ma indil ay yu kenn xamul afalaat tàqiluun waa du ngeen xellu toog tuuti na këj réfléchir xalaat jël sam xel mi wañaar ko wëlbati ko seetaat ko afalaa tàqiluun waaw yéen waaw waaw du ngeen xelu seet xel mi bàyyi làmmañ yi tëj ko seet xel mi réfléchir xam ni man manuma bind manuma liir li may wax ci yàlla la jóge haa antum haulaay xaajajtum fii ma lakum bihi ilmun falima tuhaajuuna fi ma laysa lakum bi ilmin haa antum waaw léegi sax ñi jàngul ak ñi ñépp a ngi ci boole dajaloo ci xuloo bi haa antum yéen haawulaay ñii xajjajtum dangeen di weerante fii maa ca la nga xam ne lakum bihi ilmun dara amul leen ci benn xam-xam falima falima tuhaajuuna fii ma laysa lakum bi ilmun léegi nag le ñi nga xam ne mënuñu liir téere xam ne su dara sax ña la yóbbaal ne ñu am ay parti ñu far di ci dugg te yéen li ngeen di wet te xamu leen ci dara wallaahu yàlla wallaahu yàlla yaxla moom xam na moom yàlla wa antum yéen laa taxlamuuna yàlla mi ma wax mbir mi moo leen gën a xam maa kaana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kaana xanifan muslima maa kaana nekkul woon ibrahimu ibrahim yahudiyan ibrahima du yahud du hébreu maa kaana ibrahima yahudiyan du yahud wala nasraaniyan du tubaab du tubaab du nasaraan walakin li fi ne kaana nekk na xanifan doon ku jub xanif bi islaam lay lay wane xanifan ku tegu ci lu ko yàlla santaane la muslimaa ku jëbbalu woon la ci yàlla ku ommatu woon la musliman muslim la moom ibrahima wamaa kaana kaana masula nekk nag minal mushrikin ci kuy bokkale yàlla ak dara inna awala naasi inna awala naas bi ibrahim inna awala naas ki gën a ci doomu aadama yi si ibrahim inna awala naasi ka gën a yey inna awala ki gën a yey naasi ci doomu aadama yi bi ibrahim ci ibrahim ki ku gën a jigéen gën a ci moom allazina tabahu mooy ña ko toppoon jàmbaar ya ko toppoon wahaasa nabiyu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mii ñu ñu toppaloo Ibrahim wala seen amono ak jullit yii nga xam ne ay jullit lañu ñoom ñoo gën a yey ci Ibrahim wallaahu yàlla waliyul muminin yàlla ne na wallaahu wallaahu yàlla moom suñu borom tabaraka wa taala wallaahu yàlla dimbali al muminin way gëm jaalana allahu min al yàlla na yàlla boolu si mumin yi barka alquran yàlla nee wa wal Hmm. wallaahu waliyul muumin yàlla nee na dinaa dimbali woy gëm ya muy wax waddat taaifatun min ahlil kitaabi law yu dulunakum waddat ñu ngi ne ñew ñew dañu lañu bëggoon bokk waddat taaifatun benn kuréel a ngi ci groupe bi min ahlil kitaab bokk ci ñi jàng li ñu bëggee mooy mooy law yu di luunakum pour sànk leen yéen jullit yi wa yu di luuna duñu mën a sànk nag illaa anfusuhum lu dul seen bopp wa yëguñu ko aaya bii aaya bu day waar a ngi nii laa ilaha illallah aaya bii day ngi daw kii day bokk <laughs> aaya baa yaa ahlal kitaabi yéen ñi nga xam ne yéen a jàng téere yi lima ma takfuruun lu tax ngeen di weddi bi ayatillaahi ci kéemaan yàlla yi wa antum te yéen tashadun seede woon ngeen ne kéemaan yi dëgg la ba pare xëy weddi ko aaya bi aaya bu day waar la nekk ak nit mu gëm la dëggal la loo wax mu ne iskay tisooy li xëy suba ne doo doo dara xas la saaga la wax lu nekk wax la musiba <laughs> la sëñ Moussa daan wax rek la woon a ngari waay waay sëñ Moussa Mbaye yàlla guddal sa fan wéral sa cër ka alquran borom alquran la laay wax ne la woon ngari rek ah waaw moom moom lu ngi nii aaye bii sarxa bii lii ñuy wax nii su ma toogee fii sax du ma firi yax bi dama fiy toog rek booye boo rek ma daw Mm-hmm. xëy boo ma daw de yaaxlal kitaab bi waaye yéen ñu wax ni et vous vous vous vous qui se réclame intellectuel laa <laughs> ilaha illallah yaaxlal intellectuel yaaxlal kitaab li maa talbisuuna al xaq bil baatili wa takatumuuna al xaq wa antum taxlamuun ah yaaxlal kitaab yéen wax da jàng naan ngeen téere yi jéexal ko ba jox seen tiitru bopp intellectuel li maatal bi sonal xàq lu tax ngeen di nëbba dëgg gi bil baatili ci aw fen wa takkatu mun al xàq ngeen làq dëgg gi waantum yéen tax la mun a xam ngeen dëgg gi di ko làq lu tax wa qaala taayifatun min ahlil kitaabi aminu billazi unzila ala allazina amanu wajha nahaari wakfuruhu axiruhu laallahum yarjiwoon déggal waqaalat wax nañu taayifatun benn kuréel bu nga xam ne dañu woolu seen xam-xam def réflexion ne ni ni gars yi di dugg si jullit di ko gëm daal massivement doy na waar kon nag léegi foog ñu def méthode def benn méthode pour génn leen ci islaam nit ñi def mooy nii wa xaalaat wax na taayifatun benn kuréel ne min ahlil kitab si borom jàng yu rëy yi ne dañoo jàng ne léegi ni la def amino dañuy gëm billës yi ci li nga xam ne unsila wàcce na ko alal lësi na amono ci li yàlla wàcc si jullit yi maanaam alal lazina amanu ci li yàlla wàcc ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu déclaré ne gëm nañu seede ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullahi bu ko defee ñu dugg ci islaam waaye dañ koy def wajaha nahaari dañuy bàyyi ba ba ba ba nga xam ne onze heures onze heures demi jot na mi di bëgg a jot waaw ñu dal di ko def bu ñu ko defee noonu buñ defee noonu ba ñépp gis ne tuub nañu dugg nañu wak furuuhu ñu weddi gannaaw ga ñu weddi nag aaxira hë balaa jantobaa sax ñu génn ca wala ñu bàyyi ba sa ëllëg sa gannaaw ëllëg sa rek ngoon nga rek ñu génn wat si islaam génn gu ne fang la allahum ndaxtale yar ji oona suñu gaa yenn woon ca biir mit ba fa desoon naan boo génnee man ngaa loroog nangam ñu dañuy génne dara du dara duñu lor ñoom it ñu topp si ñu li nga gaay plan bi ñu tëral nee nañ ñoom intellectuel lañu réfléchir nañu te gaa yaa ngi dugg ci islaam ak doole waaye koo ci waxtaan moo la yoo dugg naa pare mais man naam bu ma génnee affaire seede bi ma seedoon man na ma lor donc daal bàyyi li ma rek ma des si biir sama gëm sax dëgërul wala yooyu ñu def enquête ba gis ni daal ñii seen passeport dëgërul ñu def seen plan nag na noonu lañ def léegi ñoom it dañ ñëw dugg ci groupe bi massivement boola dugg bu ñu duggee si suba yonte bi kontaan ju jox leen lekk ak naan ñëpp kontaan ñu def fa ay fan xëy rek benn bëccëg ndare kàmm daal ne génn nañ ci diina ji départ bu ko defee suñu xarja fa noonu sax daañ ñu topp stratégie bu ne def nañu ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dëggal la aaya bi ciy tagu wala tuuminu ilaa li man tabia diinakum wala tuuminu du nekk way gëm illaa lu dul li man ña nga xam ne tabia topp nañu diinakum seen diina ji ndax inna diina indallahi l islaam maanaam kiy jéem a set référence di xool di xool xolam di jëm ci yàlla kooku moo mën a gëm diine wala tuuminu illaa li man tabia tabia diinakum qul wax leen ne innal xudaa njub day xudallaahi moo njubug yàlla nañu xam loolu an yuuta ahadun misla maa uutiitum fii am na prix waaw fii foog ñu firil la ko an yuutoo an yuutaa an yuutaa ahadun misla maa uutiitum waa gars yi xanaa dañu bëggoon kenn ku ne yàlla ne da bëgg kenn ku ne ma yëkk téere jox la nga téye Muhammad laa wóolu moom laa moom laa jox alxuraan jeex na waaw ba bés tey lii da koy gis koo xamee ne kii dañ ko jiital waaja boobu ko pakastal bëgg fa toog ak yu kenn xamul lu tay wax mu ngi nii an yootaa ahadun ma jox misla misla mm, lu mel ni maa uutiitum li ma leen jox yow ñoom lu ñu newoon ñaw ma jox leen li ma leen jox yow li ma leen jox yow Muhammad yaa musulman yi ñoom ñii chrétien yeeg yahud yëpp dañ leen ñee moom lañ doon xaar jotuñu ko moo tax duñu leen bàyyi mukk di leen problème aw yu haajukum inda rabbikum aw wala boog yu haajukum inda rabbikum su ko defee su fekkoon ne dama leen jox lu mel ni li ngeen yor bët guddeeg bëccëg ñuy xuloog yow dàggasante rek da nga koy gis si façon qualité da gis si façon seen qualité intellectuelle yi bu kii waxee pare au lieu que dëggal moroom ma daaf ko woy woy c'est pertinent woy mais enfin booy tàkkee question là yu kenn xamul kenn mun la ko wax fii sax boo boo gisee fii boo gisee ci biir sarxa bi fi yonent bi salaa salaam mu ngi wax euh, euh, euh, lu doy waar maanaam mu ngi wax fii ne na ngeen moytu dàggasante yu bari am na peuple yu leen fii jiitu woon li tax yàlla alag leen moo doon question yu bari ñu doon pose seen question ñu doon pose seen yonent ba pour daaneel ko ak seen dàggante yu bari moo tax yàlla alag leen mu ngi nii ne fang nga ah waaw parce que fii affaire bi affaire bi baat bu gàtt la mais bu bu yéeme la. Mm-hmm. Mm-hmm. an yuta ahadun misla ma utiitum aw yuhaajuukum inda rabbikum qul qulli waxal yow na ahmad sala waxal qulli innal faddala naka ngëneel bi yadillahi ci loxo yàlla lag la nekk loxo yàlla képp képp képp yuutiihi dana ko jox man yasaaw ku ko soob ku ko soob nag wallaahu yàlla waasiwun aji yaatu taraanga la alim adi xam li muy def la yaxtasu yaxtasu dana dana takk bi raxmatihi ci ci jooju man ya saw ko ku ko soob man ya saw ko soob wallaahu yàlla zul fadlil azim mooy borom ngëneel al azim ba di aji mag yàlla ñu takk ca ngëneelam yooyu ak boobu bi barakatil quraanil karim wa min ahlil kitaabi man in taamanhu bi qintaarin yuwaddihi ilayka wa minhum man in taamanhu bi dinaarin laa yuwaddihi ilayka laa ilaaha illallah ni yàlla waxee barka alquran kenn mënu bu topp sarxaa bi ban ba ba sànku bu ko def de billaahi déggal yàlla déggal yàlla na wa min ahlil kitaabi am na si lenn ci intellectuel yi ñuy jàng nii bàyyiwul kenn jullit ak ñépp man intaaman hu boo leen dénkoon bi qintaarin ay million voire ay milliards yu waddihi daañ la ko jox illay ko yu waddihi illay ko boo soxlaa sa xaalis dañ jox la ko moo ñu tagal la ko fa waaye wa minhum am na si ñoom man ñu nga xam ne intaaman hu boo leen wóoloo bi dinaarin jox leen benn dinaar benn dinaar dërëm laa wax dërëm laa yu waadihi ilayka duñ la ko joxaat mukk ilaa maa dumta alayhi qaayiman xanaa nga poñe leen porte leen plainte wala yóbbu police wala nga woote ko woote woote ilaa maa dumta xaay man xanaa nga taxaw temb ne dinañ la fay par force zalika ñii day bi nag ko ñoom xaaloo xam nga lu ñu wax de yàlla dégguñu ko de dégguñu lu mu wax de yàlla nee na maa xam la ñu wax seen biir xol zalika ne zalika loolu de lu tax ñu koy def zalika benn xam ko ñoom xaaloo nee nañu naa laysa alaynaa fil ummiyina sabil laysa yellul alaynaa suñun intellectuel yi bil ummiyina les lettres laa xamuñu dara dañ leen di nax rek bil um bil um yii na sabila wala ñu am benn yoon ci ñun lu ñu dénkit ñu lakk ko xamuñu dara foo may jëme foo may jëme hmm. gars yi nañ def attention de suñu borom tabaraka wa taala xam ne lépp de jamono bi yëpp jamono yëpp la wax déggal lii rek wa yaquluun ñu ngay wax alallaahi wa yaquluun alallaahi alkasiba ñu ngay sos ay fena ñu ngay sosal yàlla wa yaquluun àlallahi kaziba wahum yaxlamuun dégg nga wa yaquluun ñu ngay sosal àlallahi ci yàlla alkaziba ay fen wahum ñoom yaxlamuun xam nañ ne dañuy fen parce que nee nañu nee nañu ku jàngul xamoo dara kooku nax ko wàjjiwul dara moom la ñu wax sa biir yàlla ne balaa waaw ca dëgg nag man aw faa ku matal bi ahdi ci kóllëre gañ la dénk na dencal lii trésor bi yaa yow lañ ko denk yàlla trésorier wala nangam wala nangam wala wax bii wala kàddu gi bu ko génnee lu mën a doon ngeen fasante kóllëre wa taqa nga ragal sa yàlla xool yàlla ma nga xam ne moo leen témoigné fay na laax nag yàlla yuhibul mu taqin yàlla ne ma maa bëgg ku nga xamante ne kii da ngay am taqwa sama digganteeg yow ak sa digganteeg say nawla ak sa digganteeg sa sa nawla sadaqallaahu al azim wa balaxa rasuluhu nabina al mustafa al karim wa nahnu ala ma qala rabbuna wa khaliquna wa rasuquna mawlana min ash-shahidin allahumma rabbana taqabbal minna innaka anta samiu du'a wa tub alayna ya mawla innaka tawwabur rahim wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna lil qawmil kafirin wa sallallahu ala nabiyyina mawlana muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa khadimihi wa ummati wa sallama taslima subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wasalaamun ala mursalin walhamdulilahi rabbil alamin tawfiq